jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci grand théâtre ki ñu fi woo di mbër doon champion waaye nekk nit koo xamante ne chaque fois exemple la ci wàllu làmb muy Siteu tarkindaa bi ni ngeen koy déggee Baye Fall bi comme ni ngeen koy déggee xale bi nga xamante ni mbooloo mu bari dañuy topp ci ginnaawam suy bëre mu dem ba war a xalaat ni dëkk bi mu dëkk jàmm gën bi mu dëkk fi mu fekk baax war na fa jàppale ñi nga xamante ne daf leen a tane ci am moyen ci xam-xamam ci xalaatam ci jëmale li jëmale jàmm gën kanam tey moo waral mu créer benn euh, li nga xamante ne mooy kuréel bu bees tuddee ko tarkinda sociale fondation la boo xamante ne vraiment ñu bari ci làmb ñu ngi koy rafet mbokk yi saa su ne da ngay dégg ñu naan mbër du xarit saa su ne ngay dégg mbër du àndandoo saa su ne ngay dégg mbër du day wor waaye war nañoo xam ni exemple bi Siteu joxe ci làmb mbër noble la mbër nit ku baax la mbër xol bu rafet la yor xor bu yaatu la am boo gisee kër gi nga xamante ne mu ngi koy tabaxal yaayu de moo lay wane ku am ngor la ak ñi muy àndal ku am dignité la ak ñi muy àndal mbokk yi kaay ñu dugg xool suñu confrères yi ñi nga xamante ñu ngi ci bërëb bi di ci yëngu su Abacar borom Leewtoo sama xarit. Baye Djili maa ngi lay ziar. maa ngi am jaamu bu baax a baax. noo bi nga xamante ne Siteu def na ko muy mbër moo xamante ne dafa créer fondation bu mu tuddee Siteu euh, social Tarkinda social mu nekk loo xamante ne lu làmb di rafetlu la. ban gis-gis nga ci am. Euh, Baye Jil xanaa di di ko rafetlu bu baax rek parce que Siteu dañuy jàpp mën nañ jàpp ne exemplaire la ci mbër yi. parce que mbër la ma nga xamante ni bii day innové yemul ci bëre bu muy bëree kese mais dañuy gis muy def geste geste geste social yi nga xamante ne bii yu am solo la. mën nañ ci jàpp foode bi nga xamante ne bii moom la doon àndal guddi ak bëccëg foode amoon benn mébét mooy que tabaxal yaayam kër. Euh, yàlla dogal yàlla ñëw ak dogalam Fodé jiitu surtout bàyyi fi Siteu Siteu na Fodé mi ma doon àndal mu amoon mu amoon mébét tabaxal yaayam kër euh, mébét bi Fodé amoon dama koy àggale mu nekk geste acte ba nga xamante ne bii àdduna yëpp ñoo koy rafetlu di dimbale doomu aadama yi si doole yi képp ka nga xamante ne bii am ga ordonnance lépp lu ci mën mu def ko kon tey bu taxawee taxawalee fondation bu toll nii tuddee ko fondation Tarkinda macha allah du def lu dul encouragé ko di ko ñaanal tamit lépp la nga xamante ne bii mi ngi ko ciy mébét lépp la nga xamante ne bii objectif la ci Euh, um, euh, fondation bi suñ borom jàppale ko mu yeggale ko en tout cas loo ci mën di dégg daal c'est nit ku baax la te xol bu rafet la yor. ñu doon wax naan mbër day wor mbër du xarit du àndandoo. tey ba loo leen di wax ci lii Siteu. bàyyi ji la xam nga règle boo gis am na exception ñëpp bokk ñu yem euh, wor ci millier bépp la am am na ci artistes yi am na ci mbër yi am na ci domaine boo dem fekk fa nit kuy wor mais domaine boo dem tamit fekk fa nit ku dëggu. ko mën nañu wax ne domaine u làmb Siteu bokk na ci nit ñi nga xamante ne bii ci nit ñu dëggu ñu bokk te lépp lu mu wax loolu la gëm te lépp lu mu wax loolu lay def te boo déggee ay ay message am yow mi nga xamante ne bi yow yaa toog di ko déglu day dugg ci sa biir xol parce que da lay leer ne kii li muy wax ci biir xolam lay jógee te damay faral di wax naan lu jógee ci xol ci xol rek lay delluwaat mi ngi noonu kon mën nañ wax ne ñi naan mbër day wor am na mbër yu war mais am na mbër ya nga xamante ne bii mbër yu dëggu lan lépp lu ñu wax looloo nekk ci ñoom. jërëjëf Mbaye jaajëf Baye Dieng soxna waaw man damaa kontaan ci Siteu. man Ami Collé laa mhm. wax ci li nga xamante ni moom la Siteu. waaw man nag man artiste comédienne laa. Mhm. man réew mi daan laa dekk mhm. mais dama kontaan ci Siteu. parce que Siteu vraiment euh, li muy def nii am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ci réew mi dëkk ci réew mi lool nag yor nag plenty of lu dul jeex war koo mën a def. mais moom mi nga xamante ne macha allah loxoom xaw na jot ginnaaw laay wax xaw na jot ginnaaw mu koy def kon dañ ko war a encourager macha allah ci mbër nag. man Siteu daal sama xol dafa sedd ci moom yàlla na ko yàlla jàppale nag te fi mu bëgg a yegg fu ne yàlla na ko fa yàlla yeggale ndax wax dëgg yàlla social bi muy def nit ñi bëgg nañ ko ndax sénégalais yi sonn nañu Sénégal fii ñëpp a sonn dañoo sonn dund gi cher na dund gi seen na metti na lépp lool laal lool laal ñu ne la yokk nañ man damay ragal sax ñun ñi si nit yi suñu bopp ñu dem ñu dem ba ñu yokku nañ wax dëgg yàlla si encouragé di ko ñaan rek mu jëm ka kanam li muy def ni macha allah tarkal la ca kaw ca kanam rek ci lu baax. jaajëf.

Siteu honoré leen jox leen li nga xamante ni mooy trophée jaajëfal leen delloo leen njëkkal sëñ bi nootu man maay Ayawaar. Ayawaar waaw. ay depuis ban année yaa ngi ànd ak Siteu. Siteu plus de. waaw su ma juumul plus de trente wala vingt cinq ans ndax ñoo foowandoo mun naa ne la kuti ba mbow. ñoo ko waaw ñoo dundandoo yàgg na ko waaw ndeysaan ba si waaw ñu jam si yàlla seeg ñëp bu Seck Njool ndeysaan booy Abu Njaase nii barke alxuraanu karim boo yëpp nice mu gaay mënoo mënoo lim maanaam tey góor yàlla yi nii tey gars yi mooy loolu waaw tey mu jox leen li trophée boo xamante ne da leen delloo njukkal yéen ay xaritam ban yëg-yëg nga am bi nga yéegee si chaîne bi gis Siteu ni mu mel ak ni leen def ak fi mu leen teg. kontaan kontaan defee lu ko bu ko deful lu ko war la kon maanaam tey bu ko defee kon duñ def leen lu dul kontaan maanaam tey tey ñu ñëpp la suñu xol sedd ndax lim lim ñu woon sax si image si Fodé rek jot daa jot na waaw dal na xel ko waaw maanaam tey foo ñu man sama tutànk la ñoom ñëpp mun naa ne la waaw maa leen maa ci xawoon a sax mag tuuti mais maanaam tey ci geste bu ñu def si foo ndax foo rek man loolu noonu rek daf ma gën a yokkaat waaw ma gën a yokkaat waaw comme mu ko bëggoon sax waaw yokkaat na ci waaw ay waaw dëgg la quoi gars te gars yi li ñuy dund nii tamit waaw li ñuy dund dëgg la moo tax waaw kontaan si terkinda social bi nii tamit te après day gën a yaatoo fondation bi tey say gars yi nii góor yàlla yi nii tamit ku si mën a jàpp góor yàlla yëpp ku si mën a jàpp nañu ñëw jàpp si ndax ñun ñun la quoi c'est nous quoi tey say tàngoor bi toll na foo xamante ne nii ñun maanaam tey ñun ñoo ko mën a defar mais amaana tey see am na loo xam ne buñ ko continuer di baax buñ ko buñ koy ñoddi nii rek après du baax ndax suñuy rakk tamit ndax léegi jëm nañu mag li des suñ dund maanaam tey dafa war a rafet moo waral tey see gisoo gaa yëpp waaw ñu doon dëngaloo ñu doon dëngal sax dañoo waaw wàññi yoon daw génn ñoo di élevage le milieu bi tey see am na si ñoo xamante ne ñun ñëpp kenn ku si nekk am nga say jaar-jaar man amaana tey am na ñoo xamante ne nii xam nañ ma bu baax mais amaana tey see li sa waay woote nii maanaam moo waral tey góor yàlla yëpp kenn ku si nekk xam nga la ñuy gën a jaayante maa la dàq jaayante maa la gën a gëm yàlla maa la dàq liggéey maa la dàq teral sama yaay maa la dàq teral sama bapp loolu la góor yàlla yëpp di jaayante saa mi doon si tarkindaa yëpp te yàlla na yàlla def jàmm li si kanam rawu li bët kontaan naa naas jaajëf. maa lay ziar. ñoo ngi delloo bi noonu. Omar Faye. Omar Faye dalee ànd ak léegi Siteu moo yi ñu toll nii bañ daree ànd moom yàgg na moom wax fa dëgg yàlla moo mag moom mais xam naa ne moom moom boole na ma si boppam quoi du question de làmb moo tax wala leneen ak leneen mais am na lu ñu sekk leneen loo xam ne lu dul làmb sunu grand bu baax la ku waaye ku fonk doomu aadama billaahi bi moom di ko rafetlu rek di ko ñaanal level bi di gën a yokk ñu dem bay jàppale di tabaxal nit ay ay nit yi nit ay kër ñuy dëkk incha allah rabbi waaw jaajëf ok incha allah jaajëf. mbokk yi kii taxaw kenn du leen ko présenté muy abu ñaase ñëpp xam nañ ko ak Siteu Abou yaa ak Siteu ban at ngeen dala ànd wala ñaata at nga ko doon xay waaw mën naa ne ndaw la ndaw la ndaw ba léegi. waaw xale ba léegi ñu ngi ànd. waaw xale ba léegi ñu ngi tey mu def fondation bi. woo ci ñi nga xamante ne ñooy ay xaritam yéegal leen ci podium bi jox leen trophée bi honoré leen ko ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan rek kontaan xam nga waaw suñu xol sedd na xam nga waaw ñun nag duñ jug si lu dul lu muy def saa su ñu ko siy jàppale. waaw parce que gëm nañ moom lu baax lay def te lu baax dañ la siy jàppale. bu doon lu ñàkk fu la wala loo xam ne baaxul duñ si sax taxaw. mais dañu xam ne li muy def ay gestes la xam nga moo tax saa ne ñun ak moom nag depuis ndaw la waaw ba tax na moom bu ŋànkee ñun bu ñu ŋànkee moom day bàyyi lu mu métti métti parce que benn lañ. te duñ ko dugal mukk si lu ñaax fula wala lu koy jëmale ginnaaw. Mm-hmm. fondation bi loo ci wax. waaw fondation bi waaw liñ ci wax moom comme ni mu gis nga ni ko tàmbalee nii. waaw dañu bëgg lii sax maanaam mu raw fii quoi. parce que maanaam du du pour doomu jàmm kese mais man pour man pour banlieue la pour àddina la. waaw man pour man pour loolu la quoi pour àddina la. parce que tamit Sénégal dafa métti. Sénégal dafa métti dafa bëri jeunes yoo xam ne liggéeyuñ billaahi Sénégal dafa metti de dafa métti ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax surtout ma banlieue bi ni ñuy dund mënuñu leen ko wax mais tamit du ñëpp mais ñi nga xam mën nañ ni nañ jàppale ñenn ñi quoi xëy na moom loolu la créé bëgg xam ñu nit dañ ko siy gunge quoi waaw ba keroog mu si am ndam ndax bu amee ndam ñu am ndam surtout boo amee gàcce ñoo am gàcce boo amee ndam ñoo am ndam kon saa su ne xam nga lu koy waaw maanaam lu koy utal ndam rek lañuy def. Mm-hmm. kon fondation bi daanaka fondation bi du fondation jàmm gën. Mm-hmm. waaye fondation Sénégal. mais xam si ne dafa nekk nit benn nit boo xam ni maanaam du nekkul jàmm gën kese léegi quoi donte ni jàmm gën mooy base am nag mais doomu baal banlieue bu nekk dafay ñëw. Mm-hmm. waaw muy koñ bu mu mënti nekk. waaw di woo ku ko mën a jàppale mu ñëw jàppale ko te yàlla tax séntu si dara. waaw jàppale pour ñu maanaam gën a encadré xale yi parce que ñun ñooy seen mag te bu ñu leen waxee dinañ ñu déggal te lu ñu wax dañ naan grand yi kon ñun yoon na ñu xoolaat suñu taxawaay xam nga gunge xale yi jàppale leen wal leen yoon bi nii la ak nii parce que lii baaxul lii boo ko defee di si génn lii boo ko defee doo si génn parce que loolu rek moo fi xale yi xam ñu ñoom bu ñuy gis ñun ci xam nga ci maanaam ci maanaam ci bon exemple ñu gis duñu gis ci lu ñàkk fu la ñoom saa su ne ci la ñuy dox waaw parce que ñun ñoo leen yar en fait ñun jaaxalu parce que ñun ak ñoom la xamante nañ bu baax mais saa su ne ñu ngi ciy jéem te dinañ def lu ñu mën waaw parce que ku sañoon sa doom moo fi gën mais ñun it bonu ñu nag xëy na dañu tafal benn étiquette mais dañ ko bëgg a xeex ba mu dëñ te si lañ dëkk te si la ñuy dox xëy na fulla bu bëri moo ñu sonal mooy du ñu tooñ nag mais ku ñu wax moom ñu maata la mais xam nga loolu yëpp day gën a jeex parce que xam nga. léegi ngeen baal ko sax. c'est ça le problème mais am na wokk yam day ëpp nag. Ah, waaw amul benn ku la wokk ci digg géew doo ko baax. waaw mais si biti nii sax bu dee effacé woo xam nga coowoo ñun naaj firi. Hmm. parce que tamit ñun ñëpp benn léegi ñun ñëpp xamante. moo tax nit xam nga ñun ñëpp xamante nit ku nekk na nga xam sa bop hmm. xama nga di bëgg Assane Serif sama seexu yàlla bi. Hmm. di ko ñaanal jàmm parce que ñun ak moom la. famille la. waaw te saa su ne lu ñu mën nañ ko si def. ngir borom bi dafal ko jàmm defal ki gaañu tamit xam nga tawféex mm-hmm. nu mu gën a rafetee ñu ngi koy ñaan yàlla xam nga Chérif mm-hmm. ñëw si jàmm parce que jàmbaar la nit ku baax la du nekkul nit ku ñàkk fu la mm-hmm. kilifa la responsable la xam nga kon saa ne nit la quoi suñu gaañan la. waaw mooy loolu mënu ma wax sax kontaan daal barke sëñ Touba di bëggee ñëpp nag. waaw maama mu ngi fi. mu ngi ci mu ngi ci jàmm xam nga. waaw lépp jàmm mais tamit ñu ngi naan yàlla xam nga borom bi taxaw ko ku ko mën a jàppale moom it nga jàppale ko. parce que ndaw la boo xam dañ ko war a jàppale te ay soutien de famille lañ. Mm-hmm. Eh, te war nañ am lépp. Mm-hmm. soutien de famille la moom it muy Assane tamit soutien de famille yor ñaari soxna. Mm-hmm. ñun famille lañ quoi mais maama ku xam instant bi xam ne sax warul sax génn quoi na toog. waaw gars yi fexe nuñ ko jàppale borom bi defal ko jàmm si kattanu yàlla. wégee bàyyi jiiri. kilifa gi maa ngi lay nuyu. lay sant bu baax tudd. Adama. Adama Gueye ñuy wax waaw. Adama tey Siteu woo xaritam ci podium bi yëkkati teraanga bu mel nii honoré leen ko yaa Siteu ban moment ngeen dala ànd ak seen ànd lan moo la ci gën a marqué. moom dalay ànd yàgg na léegi ba ñuy xale ba ndaw ma léegi yàgg na daal maanaam ñoo defandoo lépp lépp ñoo ko defandoo maanaam li ngay dundee xale ba nu ngay dundee moom ñoo koy dund waaw mais tamit moom dañ koy ñaanal waaw dañ koy gërëm. ngeen yéegee ci podium mu Théâtre bi. Siteu yëkkati trophée bi jox la ko sa xel ci lan la dem. waa dafa def lu mu war a def rek. Mm-hmm. na ñun taxawu nañ ko fu ne moom taxawu nañu fu ne. waaw mais dañ koy gërëm ci loolu. Mm-hmm. Mm-hmm, dañ koy gërëm moom amaana am na mbër yoo xam ne bari nan seen xarit dëmb. xoolatul leen lijjantiwul leen deful leen dara mais ci ba tey ñoo fa wandoo ba ñuy xale ba ni ñuy màgg ñooy ànd. ba léegi buggoon ko neexoon tey am na lu bëri moo ñu ko te xoolul loolu te doxewul loolu tamit. loolu dañ ko si sant di ko si gërëm. Mm-hmm. fondation bi lan nga ci wax sénégalais yi ak rawatina ñi nga xamante ne ñooy jeune su jàmm gën. fondation bi. waaw ah, dañuy ñaan yàlla ñu jàppale ko si rek. ndax moom xale la. waaw na nga dimbale bu nga ko jàppalee rek amaana nag lu bari mën na wàññeeku si banlieue bi. waaw mm-hmm. ah, ah. jaajëf maa ngi lay jaajëf. jaajëfati. di la siyaar yow ñëpp xam nañ la ak Siteu. tey ñu yëkkati trophée bu mel ni delloo leen ko njukkal ci podiumu grand théâtre àdduna bépp di gis ban yëg-yëg nga ci am. waaw sant yàlla rek gërëm Baye Sidi Mbacké alxuraan bu baax a baax lii moom mbégte la si ñun ñëpp soo waaye mu am bu amee initiative bii nii xam nga ñëw jël ko defal ñu lii nii xam nga ñun tamit loolu mbégte la si doon lay doon si ñun xam lu dul kontaan lu rafetlu ko di ñaan li ñu sumu nii xam nga borom bi defal ñu si tawféex boo xamante ne nii xam nga saabu liñ si bëgg daal borom bi defal ñu ko. incha allah. bi ngeen yéegee ci podium bi Siteu yëkkati teraanga bi jox leen ko ban yëg-yëg nga ci am maam sa xel ci lan la njëkk a dem. non moom dafa wane ne dafa wane ne maanaam tey jii nii lii mooy ànd rek xam na ñoo xamante ne nii maanaam tey jii mën nañ woo seen i nit woo ñëpp ñu joxe trophée ba mu jeex te duñ jox seen i nit trophée mais maanaam lii gën nañu jàngal xam ma la wax gën nañu xamal nañu maanaam tamit sa waay moom mi ñuy bàyyi xel. parce que ku la bàyyiwul xel xam du leen jox trophée waaw mais gën nañu xamal loolu noonu di ko ñaanal daal lépp lu mu sumb rek yàlla def si jàmm ñu àggale ko ak jàmm ak salaam ak seen Tuuba xamante ni jàmm gën moo ko tax a jóg rawatina Sénégal yëpp muy fondation bi ban yëg-yëg nga am ci fondation bi ak fondation bi lan ngeen ci xel di waxtaanee ak lan ngeen ci gën a séen fondation bi li mu am bu de waaw tarki daal social bi rek moom lañ si génneegum mais des na yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii lépp si biir terkindaa sociale moo ko ëmb moo ko yor waaw. parce que am na yow yu bëree bëree bëri duñ si gaaw wax mais après yooyu yëpp ñu ngi siy liggéeyaat bu baax a baax a baax. te bientôt dinañ gisaat leneen lu bokkul ak terkindaa sociale. waaw te terkindaa sociale bi chaque jour dañ siy xëy di si dox di si wax. incha allah. lan ngay wax xale yi nga xamante ne dañoo dëkk jàmm gën saa su ne ñu joxañ leen baaraamu tuuma sax saa su ne ngay dégg ñuy wax ci ñoom wax joo xamante ne ku mu doonoon yow du la neex ban message nga leen wax. message bi ñu leen wax ñun yàgg nañ ko wax. mooy que ne jàmm gën li fa am du bulet jàmm gën ñi ko xamul maanaam ñooy wax jàmm gën boo gisee mu mel nii sëñ Fallou dafa jaar jàmm gën. kon jàmm gën mënul ñàkk loo xamante ne nii lu baax la di encouragé jeunes jàmm gën yëpp di leen xamal ni leen lii lii Yalmine bi def ni du pour moom pour ñun la pour ñun jeunes jàmm gën ñun jeunes jàmm gën nañ leen dajaloo xàccandoo doorandoo te xamante ne nii nag dëkk bi changé na ko te dëkk bi bu changé ñun ñëpp war a changé ànd ak li changement bi mu changé di ñaan xale Sénégal xale xale jàmm yëpp xam nga ku si nekk lépp loo doon def si yar ak teggin benn na def fukk parce que si période boobu noonu lañu toll. xam nga lépp loo doon def si lu ñaaw te jii maanaam tey jii nii boo ñu gisee ñun ñun ku ñu xam démb xam ñu tey xam ni am na lu bëree bëri loo xamante ne nii dañ na si ñun. te loolu la ñuy ñaanal suñu rakk ñi nga xamante ne nii ñoo topp suñu ginnaaw xam di leen wax ne leen nit buy roy day roy si lu baax xam nga kon ñun nañ xool li nga xamante ne nii suñu mag ñi nga xamante ne nii ñu ngi digal lu baax di ñu wax wax bu baax di ñu xalal lu baax ñu roy si ñoom képp koo xamante ne ni lu bon nga ñu bëggal wala lu bon nga ñu yéene ñun mais ñun nañ toog rek te xam ne yàlla jeexul mais bu ñu fekk foofu bu ñu fa fekkul rek ñun après fu ñu dem fu ne dinañ mën a sigi mais bu ñu yéenee loolu fekk ñu si loolu rek après ñun loolu gàcce la si ñun. di wax jeune Sénégal jeune jàmm gan yëpp station bii nii am na leneen nag leneen loo xamante ne nii mi ngi si di wax président Macky Sall ak autorité yi nekk si dëkk bi nañ gesu si ñu jàppale ko bu baax a baax a baax parce que li muy xalaat moom li nekk si xelam mu koy xalaat bis bu ñëwee si jëmoom dinañ xam moom lan lay représenter Sénégal parce que dañuy toog di yaatal lu bëree bëree bëri mais xamoon ni dina am xalaat bu rafet te du ko mën a du ko mën a def mais moom heureusement xalaatul rek toog saabu xalaatee bu rafetee mi ngi jéem mais kon nañ ko gën a ñaanal état ñëw jàppale ko. te ko loxo ñun jàmm buñ jugee ñu ne ñoom jug nañ comme te moom ndaw ñi déggal nañ ko ba bu waxee ñu ne waaw kon mais lan moo si des autorités yi nañ ñëw jàppale ko xam nga mu ubbi ay centre ñëw xale boo xamante ne nii maanaam te jii nii nekk nga si naka sudul noonu xam nga lu ma la ñu jël la teg la si code xam nga ba nga xamante ne ni maanaam muy jàmm gën muy Pikine muy Géejawaay muy fu si mën di doon ñun teewaluñ jàmm gën kese. parce que fu foo dem fu ne foo dem si banlieue bi. kon boo si dugg xam nañ ñu. kon ñu mënatuñ teewal banlieue kese. mais dara ni ragal féré day xañee wërsëg lépp lu ñuy def lu ne jàmm gën moo siy jiitu. mais ñun banlieue lañ teewal. di woo bi ñëpp jeune banlieue bi laay woo si non ñu xam suñ bopp xam ñun ñooy ñan. waaw bu ñu ko defee daal dina baax incha allah jërëjëf mooy loolu taw feex yéen